Euh, ces candidatures déclarées ñu gis ni que ku nekk ngi bëgg bokk euh, ci élection ku nekk ngi bëgg nekk candidat mu jaral leen lu nekk le président de la république ñu ngi koy xaar pour mu décider ci sooru Benno Bokk Yaakaar euh, lan lañ mën a xaar déjà ci benn Bokk Yaakaar. dégg naa yow sax da nga bëgg a dem. <laughs> waaw je suis candidate. kon <laughs> <clears throat> président lii day wane ni mu ngi waxtaan ak njabootam. Mhm. ce n'est pas dans la précipitation mhm. effectivement mu ngi dajeeg ñu bëre euh, mu ngi dajeeg kuréel yi aussi maanaam les kuréel yi eh, constitué Benno Bokk Yaakaar euh, donc waxtaan boobu parce que lép ci lañ ko mën a la mën a juddu li ñu fas yéene def parce que le but c'est pas juste d'avoir un candidat le but c'est d'avoir un candidat qui puisse rassembler la famille vous savez euh, man ñu bëri dégg nañu fi ma doon wax ni Euh, candidature Macky Sall nécessité la. Euh, lu taxoon mooy wax loolu xam nga bu ñu jiitaloon bu ma jiitaloon sama bopp wala sama parti et cetera du waxee noonu parce que ñun dafa am fu ñu bokk am aussi suñu yéene. Euh, ci ci ci réew mi mais ci analyse bi ma defoon la par rapport ak li Sénégal war a doon ak li mu nar a jànkonteel fii ak ay diir bu gàtt notamment 2024 buy buy tournant bu décisif bu sensible mais itam li mu mënoon jur ci suñu suñu kuréel ñun. suñu famille politique quand je dis famille parce que quand même 12 euh, ans de compagnonnage euh, dafa am lu muy jur euh, tey am na relation yoo xam ne dépassé na les simples frontières de parti conséquence possible yooyu yëpp le fait que ma jàppoon ni on a ici au Sénégal un régime malgré les difficultés qui mm-hmm. sont extrêmes Euh, malgré parfois des des des problèmes de compréhension ci suñu askan suñu jeunesse maanaam pour ñu approprier wu li ñuy def. te jàpp ni métti na mais lii mooy yoon bi euh, ma jàppoon ni euh, waroon nañu def le pari. mu mu toogaat mais de façon libre. Euh, c'était autre chose son choix te yàgg na ko wax wax na dëgg. parce que ñun ñii bi ñu waxee dafa ne na n'avez pas saisi tous les signaux que j'ai envoyés. si on a moi euh, nous saisi mais nous voulions. Mhm. Euh, à un moment donné que intérêt réew mi. suñu intérêt askan ak situation bi ni mu délicaté xëy na loolu jël le dessus D'accord. donc aujourd'hui cette décision est prise nous la respectons elle crée euh, elle crée ay jafe-jafe euh, yoo xam ne dañ ko war a régler ñun suñu biir mais régler bi mooy nan la ñu tegee koo xam ne d'abord mat na ko mat na njiitu réew parce que c'est important est-ce que vous vous attendez que kooku génn euh, ci rang wu PS aujourd'hui le choix du président mais PS aujourd'hui en tant qu'instance joxewul candidature en tant qu'instance c'est vrai que même bu candidat boobu jógee feneen ñun ni ñu baaxoo mooy il va falloir que kooku itam PS investir ko Macky Sall ñun dañ ko investiroon maison du parti parce que bu ñu demee ba tànn ko comme candidat dañ ko investir suivant nos instances li mu laaj parce que ci lañ koy adopté ñun en terme tant que choix donc fii normalement noonu la war a demee mais pare wuñ suñu waxtaan mais jàpp Euh, bu dee ñi ci gënoon a taxaw euh, dañ nekkoon ci beneen logique mooy ñu def le pari de ces cinq années de consolidation du mhm. travail qu'on euh, aussi bien pour notre pays pour euh, euh, la population forcément xëy na am na préparation boo xam ne nit ñi defuñu ko maintenant il est vrai que dañu naan tout le monde est à égale dignité en tout cas à égale chance mhm. par rapport ak li ci des ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci biir Benno donc loolu euh, dañ koy waxtaan ñu ngi waxtaan dañ koy waxtaanee euh, ci suñu biir instance mais ñun ñoo tënku ne président de la république yor na ay information ci ñun ñëpp kuy ñi ne ci sa jikko sa man liggéey ou pas mhm. sa jaar-jaar sa loyauté et cetera euh, président la république am na yéene que Benno bi nga xam ne tey il a eu le génie de maintenir cette coalition aussi large et aussi longtemps que coalition boobu continuer son existence donc jàpp nañ ne am na auteur boo xam ne tey euh, mën na décentré wu pour proposer ñu en tout cas li alors mais ce ce qu'on ne comprend pas. Hmm. et je pense que loolu euh, ñu bëri ñu ngi leen koy laaj wala dinañ ko reprocher c'est que un parti traditionnel tel que le PS. bañ a am candidat ça c'est un piège dans lequel vous voulez toujours nous plonger. mais mais un mais parti justement... traditionnel le PS. mais je rappelle que le PS a perdu le pouvoir après 40 années d'exercice de ce pouvoir. cela a fait beaucoup de séquelles parce que. le PS avait perdu énormément de son personnel. Euh, vous me fait ans, on a eu le temps de se reconstituer. C'est vrai. Naturellement. Naturellement, Mais depuis lors, depuis ces 2000, où avant un parti pouvait aller gagner seul, vous avez bien vu que la réalité dans ce pays, avec euh, l'émiettement du, vraiment du, monde politique, euh, la réalité c'est qu'il faut se regrouper le plus large possible pour avoir des chances de gagner. Donc, nous, nous sommes pas des euh, des, comment des invités dans Benno. Nous sommes des membres fondateurs bi Benno. Ça, les gens veulent l'ignorer tout le temps. Oui, mais... Donc, c'est une coalition. Bon, nous mais mais d'accord, mais il y a tey bu ma ñun PS bu ñu génnoon bennoo dañuy dem dugg ci beneen coalition wala dañuy créer beneen coalition am na wala amul amul keneen ku mën a def leneen actuellement parce que euh, si vous regardez chaque parti son nom de militants nga rapporté ko au fichier nga xam ne demuloo fenn Ça, c'est une chose. Donc, mais mën ngeen dugg ci benn coalition mais coalition boo xamante ne yéen yéen koy jiite parce que ñi nekkoon ci yéen mais pourquoi nangoo ñu mën a nekk ci bennoo jiite ko mais mais que mais parce que est jóge wala ci AFP wala ci beneen ci euh, ñi ànd ak moom bàyyi moom par thème ça peut poser problème alors c'est la question c'est pourquoi on se pose ma jox l'exemple PS li tax Khalifa Ababacar Sall wala euh, keneen ak keneen ñu génnee woon ko ci PS pourquoi aujourd'hui génne ko du loolu. on ne peut pas moo tax mais pourquoi aujourd'hui vous ne pouvez pas avoir de candidat dem élection. vous dit pas par ces échecs yi ngeen yi ngeen yi ngeen yi ngeen. la politique a ses réalités. Euh, et la population elle est à respecter par tout politique boo bëggee taataan seen i baat euh, dama jox exemple da nga lu tax président Macky Sall mënuloon jël keneen ku dul ku jógee APR c'est président élu. largement, oui. certes par une coalition. Mm -hmm. Il y a des présidents, notamment le pré son prédécesseur, qui était élu par une coalition large. Mais ses alliés, ils n'ont pas fait long feu avec lui. Le président a maintenu par son, son, son ouverture, sa, son partage, tous ses alliés. Il a, il a, le président avait, le président de la République, la deuxième institution de ce pays, mhm. daf ko mës a joxe. à à kan allié donc tànn na allié. beneen institution bi ci topp mu jox ko allié tànn allié et cetera donc noonu la doxalee boobu ba léegi maanaam nous avons quand même partagé ce pouvoir nous avons gouverné ensemble c'est ça la réalité. et vous vous suffisez à ça. non c'est pas une question de se suffire est-ce que nous allons nous faisons de la politique est-ce que Alioune Ndoye par exemple fait la politique juste parce que dafa bëgg doon dara wala occuper benn place wala dafa porter un projet day xeexal askanam. dans quelles conditions quelles sont les meilleures conditions yu mu mën a dajale moom pour justement objectif boobu buñ tax mu bàyyi son travail de, du privé parce que moi je suis 100 cent du privé pour ñëw ne damay liggéeyal sama askan. est-ce que c'est simplement dama war a occuper une posture wala dama nekk war a nekk candidat wala et cetera c'est ñiy wax loolu lépp tey dama leen di wax ñu dellu xool teg seen miroir seen kër xool seen bopp parce que lu ñu teg ci table bi keneen